mbokk yi maa hum, président Macky Sall bi ñuy wax ne ak yéenewam ak mbaaxaay yéenewam ci atum 2023 dix mille semoirs ci 15 mille villages du sax par village jox yi six mbam du sax ben charrette mbam ci ben village jox béykat yi 797 mais charretu fas pour dëkk boo xam ne réew moo xam ne am na 15000 villages xam ngeen lan moo waral parce que président Macky Sall dafay détourner xaalisu Sénégal mu détourner ko pour ñi ko ñu muy jaamu muy yi détourné pour moom monsieur le ministre des finances sa qui ki la jiitu ci ministère bi dafa exonération fiscale ku ñuy Idan Perez muy doomu Israël muy multimilliardaire budget bi ñu voté ñu ne béykat day fay l'impôt day fay taxe ouvrier day fay l'impôt fay taxe té ñu ay néw di doolé ki nga xamné multimilliardaire la mu ne mo lank du fay TVA président Macky Sall wax Daouda Diallo ne ko defal ko exonération fiscale té li benn message dong la tubaab yu bari ñu ngi Sénégal nit yu ñuul yu bari ñu ngi Sénégal té dañuy jappalé président Macky Sall ñu defal exonération fiscale loolu du dëgg du yoon monsieur le ministre est-ce que vous nga ma wax exonération fiscale que may wax ni mu toll ak ndax yow bi nga Daouda Diallo vous ko dindi wala da nga ko continuer xeet yu mel nii ay communes yu ci Sénégal yu mel Boutoupa Camaracounda kunda 24 villages zéro électricité ay communes yu Nyasia, 25 villages deux électricité ay communes yu mel 19 villages 2 électricité département lëm bu même pas un millimètre de goudron Et commune, yu comme ni 0 ak mètre zéro millimètre de goudron lii nous wax ne budget yi budget d'or. la budget de 4 du budget yërmande ci askan budget bo xamné millions yi ñu premier ministre pour aide et secours le gouvernement a une action sociale une solidarité mais lolu dóor la 500 millions d'or, la te 500 millions yoyu moy ñu yokal agent de sécurité de proximité ASP ku ci nek fukki jooni ci sa payor fekk jamono joju ay auxiliaires de police bu ñuy nelaw ñoom ñoo tax ñu ngi leen di fay quatre mille lii la ñu wax ne moo war a jeex ci Sénégal ma ne du ma voté budget boo xam ne budget tappale la dañuy jël ay militants jox leen HCCT jox leen xawma euh, euh, mais conseil économique social et environnemental budget bii budget bàkkaar la budget musiba la budget copain la budget coquin la alors monsieur le ministre yaa ngi def ay exonération fiscale ku ci mel ni Idan Perez ak ñeneen ak ñeneen jamono joju Sénégal mo ngi fay bëss bu nek 4,7 milliards ci bor jamono joju Sénégal mo ngi fay wër bu nek 141 milliards de bor fekk mo ngi exonéré mo ngi may ba pare naan béykat sàmmkat néew di doole ouvrier fay lan l'impôt lolou du deug du yoon du deug du yoon fi may daanelee nak moy am yam ko gëna xam monsieur le ministre 2345 milliards ci 6400 milliards moy bor moy bor bi waaw moy bor bi dafa nek gatché mun waruñu mëna nangu ñuy dem di lebi ay bor fekk ñuy def ay cadeaux fiscaux fekk ñuy jot ay exonération fiscale ay tubab ak ay nit yu ñuul yoo xam ne ñoo gën a am xaalis foofu téeméeri juñu yoon baykat sàmmkat ak ñoom seen euh, lii daal laa amoon euh, li may euh, wax di wax sama mbokk assemblée nationale yi on va voter mais khalis bi ñuy voté assemblée nationale c'est n'est pas pour jox Total ak